الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور اليوم أيها المسلمون والمسلمات أيها المؤمنون والمؤمنات أيها الكبار أيها الصغار نحيئكم بتغية الإسلام nuxayiukum bi taxiyati ahlil janna ala wa hiya assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi dellu di ziyaara ñëpp di balaaq ñëpp di ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala yàlla nañu yàlla jéggal sunuy bàkkaar yi ñu xam ak yi ñu xamut yàlla nañu yàlla defal umran tawilan maa badan dund boobee yal na ci yàlla boole jaamu yàlla yàlla yit defal ñu ci sami'na wa ata'na ci barke weeru koor gi di shahru ramadan al mubarak di nuyu waa kër gi yépp di ziyaara it waa kër gi yépp di jàkkaarloog télé bi nga xam ne mooy télé askan bi tele bi nga xam ne moo saf askan bi di ñaan yàlla kër gi yàlla na bokk ci kër yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi yàlla na mi ñu koy ñaan am na ko te mën na ko te lu mu yor du jeex yàlla na ñu ko sunu borom defal di tàmbalee émission boo xam ne émission diine la émission actualité la ci jamono ji ñu toll muy ban jamono mooy la Cheikh Ahmed Bamba khadim rasoul wax ci axiru zaman ñu jëlee ko ci abi hurayra radiallahu anhu ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abi hurayra jëlee ko ci yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne min hazihi l fi aaxiri zamaani xiradatun wa qanadirun ci ñu mujjantalu jamono ji ñu nekk am na ñoo xam ne dinañ leen soppi golo ak mbaam xuux maanaam soo déggee soppi golo ak mbaam xuux maanaam nit dina jëf jëfinu mbaam xuux wala mu jëf jëfinu golo wala mu jëf jëfinu xayawaan mi rab waaye ñi nga xam ne seen xel dafa lënt fekk gisuñu melokaan boobu maanaam vi euh, jëmm jooju ci ñoom duñ mun a xam li ñuy wax mais nit dina jëf jëfinu mala nga considéré ko comme mala bu mel noonu ci jëfin boobu moo tax mu ne ci mujjantalu jamono jii ñu nekk am na ñoo xam ne dinañ leen soppi xayawaan yooyu mooy xeetu trop yooyu xaalu yaa rasulillahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne alaysu yashaduuna an laa ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah alaysu xanaa nekk ñu woon ñooñu ñuy soppi golong mbaam xuux yow yonent bi xanaa ñooñu nekk ñu woon ñuy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla nekk ñu woon ci kaw suuf ñuy seede ne yàllaa yónni muhammad et pourtant que ne ñun bien vrai que ne yàlla moo yónni sayduna muhammad ci ñun ngir lan ngir fa allamana diin al islam wa hadaana ila al xayri wa abaadana an ilshari ngir lan ngir mu teg ñu ci yoon bu jub ngir lan mu baaxe ñu ci yoon bu jub ngir lan lépp loo xam ne na moom sayduna muhammad xamal ñu lépp loo xam dagan na sayduna muhammad xamal ñu ko waaye dañoo toll si jamono joo xam nit ñi dañoo nelaw te kii nelaw nag munoo ko waar ba mu dégg ko bu waaree doon jariñ ñépp jommi nañ kon ñu toll ci jamono joo xam ne dañoo war a yeete ñi nga xam ne dañuy nelaw ñi yee leen mus naa toog benn jataay di waxtaan benn góor daal jóg ñaatam ñaatami ba ci man ne ma diw ne ko naam mu ne ma li ngay wax de mooy actualité jamono yàlla na la yàlla fay wax nga li yàlla wax wax nga lu yonent wax wax nga lu Seydil Hadji Malick wax wax nga lu Cheikh Ahmed Bamba wax te dépassé woo kenn te li nga wax kenn mënu ko dindi ma teg ci na ko wallaahu alam yàlla rek a xam ñu toll ci jamono boo xam ne da ngay gis koo xam ne day woote ne jullit la yashhaduuna muy seede ne an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah ku dul yàlla ba pare wa ashhadu muy seede ne anna muhammadan naka muhammad rasulullahi ndaw yàlla la yow gëm nga ne yàllaa yónni muhammad nga gëm ne yàlla buur bu baax la nga gëm ne kenn sàkku la ku dul yàlla kon lan moo tax nangu tegu ci ihdina siraatal mustaqim te yow moomu jullit yow yaa naan iyaaka yow dong yow yàlla na'budu yow la ñuy jaamu wa iyaaka yow dong nasta'iinu yow la ñuy sàkku ndibal yow yaay wax loolu de ne yow dong na'budu la ñuy jaamu ba pare yow la yàlla santaane yow defoo ko la yàlla digle yow defoo ko la yàlla tere yow bàyyiwoo ko nga ne en tant que musulman nga ne yow musulman nga nga ne en tant yow bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci ban jamono lañ nekk moo tax mu ne ñooñu de yasumuuna dañuy woor te ay jullit lañ wa na dañuy julli seen waxtu juróom kon nag fa maa baaluuhum ana lan moo nekkoon seeni mbir bañ leen di soppi golo mbaam xuux yonent bi daal di àddu ñooñu de ittaxasu ba ñu nekkee ci àdduna ittaxasu dañoo jàppoon lan lañ jàppoon almaasifa mooy misik wa dufuufu ak ay tëggi sabar wal xaynaatu ak misik fa baatu nag ala surbihim wa lahwihim maanaam mu ne ittaxasu dañoo jàppoon ba ñu nekkee ci àdduna almaasifa ay piano wala guitare waddu foofu ñuy tëgg ay musique wal xaynaat ñuy fanaanoo maanaam di tëggi misik di tëggi sabar yonent bi ne fa baatu ñuy fanaanoo ala surbihim ci naan sàngara bari na doomu jullit yoo xam ne dañuy fanaanoo di mooy yàlla ba bërsëg ne ñoom ay jullit lañ lan la yàlla wax ci naan sàngara lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci li la wowal xol te musique en général day day wowal xol gisal ki nga xam ne day concentré wu ci musique gisal ki nga xam ne maanaam xeetu seytaane rek moo ko neex kooku buy jëf jëfinu seytaane lay jëf ci lu ëpp nag ci ñuy dund ci wàll boobu moo tax mu ne fa asbaqu ñu mujjee leen soppi lan lañ leen soppi waxat musiqu ñu def leen xiradatun golo wa xanaazirun ak mbaam xuux ñooñu nag tanqusu inda simaai alqurani wa taqwa inda misamiri sheytaani fa yarqusu laylan aw yanfiru salaata naxoru diiki gis nga ñooñu melo boobu tanqusu dañuy wàññeeku inda sima il quran yi pour bañ a dégg alquran ñooñu fu alquran di jub rek ñoom duñ fa taxawaalu duñ fa nekk te ñoom ñooy woote ne ay musulman lañ ñooy woote ne ay jullit lañ te fi ñuy waxee yàlla nee na yonent nee na duñ fa teew ba pare ñuy def seen bopp ne ay jullit lañ kon aaya ba day denduwaat ci ñoom ne lakum diinukum waliya diini aaya ba delluwaat ci ñoom ne imma shakiran wa imma kafura kon ñooñu nañ leen attee noonu ba yowmal qiyam wallahu alam dégg mu ne nag ñooñu nag lenn ñoru leen lu dul mbiru seytaane moo tax mu ne fa yarqusu dañuy daw laylan guddi ga guddi gi yëpp dañ koy nekk di di ànd ak seytaane di daw aw yanfiru salaata su fekkente ne ñoom dañuy julli ah seen julli de naxaru diiki day mel ne séq biy cof maanaam say seen julli day gaaw comme ni séq di cofee ci suuf wa yabxadu ñuy bañ nag sima il quraan bañ a dégg al quraan te ñuy woote ne ay jullit dañ moo tax boo demee ci zabuur boroom zabuur mi ngi naan yaa ayyuhan naasu ay yéen doomu aadama yi innama dunya naka àdduna bi ngeen nekk de دار من لا دار له كر لا بو خامني دو كرو دارا ومال من لا مال له الله بو خامني دو الله دارا لتخ ولها يجمع من لا عقل له غيسغا ادنا بي دالاي بوله تي لو خامني امو لن خيل لتخ نيغا خامني دانيو تنكو تي اهدنا الصراط المستقيم نيوم لا يوننتي بي نانا ñooñu de adduna si sinul mumini wa jannatul kaafir ñi nga xam ne dañoo tegu ci ihdina siraatal mustaqim ñooñu ci prison lañ nekk li tax ñu nekk ci prison mooy que ne dañoo am ki leen di wax naan bàyyil lii xaraam na defal lii baax na ñu nga xam ne nag aussi dañoo nekk ci loo xam ne neexul yàlla neexul yenent ñooñu ay nitu jalaal lañ manam lu leen neex lañ lañ xam ñu tollu ci jamono bo xamne it aussi su baxé ñu ne diw la su boné ñu né yalla la ci jamono jooju lañ tollu dé su baxé ñu né diw la su su su su safaan manam su nat ñëwee ñu né ah nañ ko muñ te xam ne yàllaa ko teg su la yàlla mayee doo xam ne yàllaa la may nga sant yàlla ci may googu mu la may nga santee ko diw nga jiiñ ko yàlla ci jamono jooju lañ nekk mbokk yi moo xam ne ñooñu de dañuy boole loo xam ne dañuy comparé te loo xam ne amul xel man laa àqla lahu loo xam ne amul xel mu ne wabbihaa ci loolu ñuy kontaan de wala ci loolu ñuy jàpp de yafraxu moo leen di kontaan loo man laa yaqiina lahu te te wóolaange du ci am wa alayha war na ci ñoom de yaxrusu man laa tawakkal lahu gis nga du ñu wàkkiilu ci yàlla parce que yàlla may na leen xañu leen du duñu seen xel du fàttaliku ci yàlla mu gis nga koo fekk muy bëri li muy xaqataay di ree di tëb di dal xelam du nekk ci yàlla moo tax borom bayit ba ne fal yadxaku xalilan wala yabku kasiran deel bari loo xam ne danga koy jooy ndax sa xel dem ci yàlla waaye jamono boo ba nga xamee ne fuñ la fekk yaa ngi kontaan rek sa xel day du nekk ci yàlla ci seytaane lay jëm motax muné mu ne wa yaxlubu dañuy sàkku ñooñu saxwaataha banexu aduna saxwaataha banexu aduna man la maghfiratan te duñu xalaat njëggal motax borom zabur ne fa man arada ni'matan zailatan wa hayatan munqatiatan muné fa man arada képp ko xamné nam nga wala bëgg nga zailatan xéewal goo xam ne du jeex wa xayaatan ak dund goo xam ne du am àpp munqati atan bi ànd ak ndog fa yatlubu dunyaa na nga sàkku àdduna boroom zabur ne fa man talaba dunyaa képp koo xam ne sàkku nga àdduna faqad zalama nafsahu tooñ nga sa bopp wa asa rabbuhu te may nga sa boroom wa nasa axiratuhu te fàtte nga sa alaxira wa xalatu ko dunyaa àdduna war na la ki jël àddunaam rek euh, jébbal ko seytaane ki jël jëmmam rek jébbal ko àdduna kooku naka wóor ne bés dina ñëw àdduna war ko kooku ëllëg mooy la Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul wax ci euh, téere boobu di yóbbalu ndaw ñi te zawaju sixaar mu ne laa tastari dunya bi uxra yaa fata wa man baa nuura bi duja fa yandam loolu Cheikh Ahmed Bamba Xaadim Rasul wax nee bépp ndaw bu jël àddunaam jëndee ko àllaaxiraam mu ne ndaw loolu perte na ci nan nga koy xamee maanaam Matar Fall di liggéey weer bu dee mu jël kan euh, carte banque am dem ci banque bi tàllal ñu jox ko xaalisam Ousmane Fall liggéeyu deful dara nekk ci koñ bi di taxawaalu weer bu dee mataar bu fayeekoo ndax Ousmane Fall dina fayeeku yaasin may rot ci teen ba wala yaasin may rot ci robinet ba suñu dem ci robinet ba paan lay yóbbu ndee ma nga xam ne mooy rot ci robinet ba walla ci ci ci teen ba suy dem du yóbbu paan wala bu yóbbee paan ci suuf du am lay téye ndox mi su su di taataan di sotti est-ce que dina feesal est-ce que dana fekk dara salami taataan du ca fekk dara moo tax alquran ne fa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin charran yara so defee lu baax lu baax rek ngay am soo defee lenen lol lenen loolu rek lañ lay fayee moo maam Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu wax na ko ci benn téere bi ñaan zajrul qulub mu ne alaa innaha daarul gururi fa man safa lahu alxaysa minha falkuduuru laqibun maam Seydi El Hadji Malick dane alaa waawee ñun ñu nga xam ne sunu luxa foorul ñu ne alaa dama ne mu ne képp koo xam ne yaa ngi nekk ci daaru duniyaa bii te settantaloo sa dund mu ne yow moomu de dinga nga ci jafe-jafe àdduna benn moo tax Cheikh Ahmed Bamba ne fal taalamu na xam ne yaa jumlatul ixwaali yéen mbokk yi bi na na naki yéen fi aaxiri zamaani yéen a ngi ci mujjantalu jamono قد ظهرت فينالنا علامة القيامة لمن li mandargaal na bis penc digg na ci yàlla li koy mandargaal ñëw راي tolloon nañ ci ay weer rey gi mel ne tulleeg malla jigéen ñaa ngi rey ci ci jamono ji ñu nek wa kasratil isyani bari na moy yàlla fil buldan ci dëkk bi wa kasratil mawti ala al aqwaami bari na ci li de ci ndaw ñu la uppe muna wa kasratil jahli ma al qiyana bari na ño xamne dañu rir ba pare di war muna wa kasratil nifaaqi wal fujari bari na ay nafiq ci dëkk bi muna na ta'zimu zamali zamaali wa taqiiru alaalimi dañuy jël ku am alal jiital ko wa taqiiru jaahili ñu jël ku ku ku réer teg ko ci kaw ki am alal maanaam dañuy yëkkati ki am xaalis mu jël boroom xam-xam li ëpp ci réew mi mu looloo am ba ci jàkke yi ba ci jumaa yi ba ci ba ci quartier yi moom soo amee alal imaam ba du tekki dara te lu ñëw ñu ne imaam ci wàllu diine moo tax maam Seydi Hadj Malick tagg ko ci benn bayit ne yumnun wa xubbun wa maadilun wa xayaaun wa sabrun yooyu yépp amatul benn lañ tase ci réew mi muy alquran te alquran boobu moo lañuy fowee nga gis koo xam ne mu ngi ànd ak seytaane mu dem sëriñ bi jàmbal ko kaamil bi bindal ko aaya alquran yu bari mu ñëw ci dëgg pinc walla ci dëgg jataay di ko tuuroo ñuy doya dal alquran moo tax trop tànge ak natt du fi jóg benn dangay ànd ak nit mu war la isa xadasa kasaba wa isa waada axlafa wa isa atumina xaama ci réew mii ñu nekk bëgg bëgg amatu fi بغي تا يالا تخ بوما ني اماتو في دا واي جافينا كولري اماتو ني بري نيوغي خاوانتي سوتور بنين با كون هذا زمان اخبخ الزمان جامانو جي يس جامانا يي موتاخ غور غا وخاتني هذا زمان زمان السكوت وزمان اللزوم للبيوت شيخ haza zamaanun jamono jii ñu nekk soo ci bëggee mucc mu ne zamaanu sukuuti na nekk ci yow jamonoy noppi na nga noppi te yonent bi nee na man sama tànn jaa ko noppi mucc mu ne wa zamaanu luzumi lil buyuti soo ci ci jafe-jafe àdduna na nga tëju ci sa biir néeg di jaamu yàlla wa zamaanu luxdati wal firaari wa ilal suxaani nee nag soo mënul loolu na daw ba ci montagne ya nga dugg ci suufu doj yi di jaamu yàlla ngir am yàlla jamono ji ñu nekk pour am yàlla lu jafe la moo tax mu ne wa maylu jalli si lin nasara wa maylun wa waylun liman maala ila nasara ñu ëpp ci ay doomu jullit daw nañ wuti nasaraan si ngir lan ngir alalu àdduna billaahi wallaahi jaay nañ sunu ngor ngir aduna mbokk yi yal nañu yalla mottalil sunu iman yal nañu yalla defal sami'na wa ata'na ñi delu di gërem wa kër gi yëpp di ziyara wa kër gi yëpp di ñaanal njabot gi yal na leen yalla yiral bopam yal na leen yalla samal bopam ni non manam képp ko non la ni la li xaraam ci jullit nim la xarame yàlla na la ko sa noon di nuyu ñama bàyyi kër ga euh, soxna faatu yaayu xale yi ak samay goro di nuyu it sama wayjur bu góor ak sama wayjur bu jigéen ak ustaas bi nga xam ne moo ma jàngal def ci man xam-xam bu nit mën a xool ci man defit ci man yar boo xam ne nekk na ci man ci lu tuuti ci li ñu nit di wax ndax ni ñi alquran moo ne wa ma shahidna illa bi ma alim naa looy sedd ci nit na nga ko xam loolu de sedd nañ ko ci man waaye ñaan naa yàlla su nekkul ci man yàlla na nekk ci man su nekkee ci man it yàlla naa yàlla naa ci gën a góor góorgóorlu bu baax di ñaanal kër gi yal na ko yàlla def kër gu mag ba dëkk bi yëpp di ko dégg fi ñuy nawee tere yi mag yi ci yàlla boole sunu tele bi ci barki weeru koor gi ah di tàggatoo ba beneen émission ci beneen buntu wala it ci beneen mawdon wa axiru daawaana walhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammad وعليه وصحبه وسلم تسليما